ginnaaw bu nu santaate sunu borom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba xaadalahu llahu maxtaara lahu ñu ñaanal cheikh mahamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ cheikh jëmbu faal waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ basiru anta ñangum borom daarul moxti mbokk yi duñ dañ benn yoon ci di ñaanal sëriñ Abdul Xuddus Mbay sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye maa ngi ñaanal mbokki jullit yëpp di ñaanal mbokki taalibe yëpp fas yéene ñëwaat ak yéen ci yóbbalu bis bi ci juróom-ñett fukkeelu numéro ak benn muy 81 numéro ñu fas yéene wéy rek ci téere bu tedd boobu nga xam ni dafay jàngale li nga xam ni mooy xam-xamu tawxiid te muy xam-xam bu mënta ñàkk ñu toll woon nag fu am solo muy ci doomu aadama bi euh, te muy yu am solo yi nga xam ni moo ne ci moom nit nag lépp solo ci moom mooy ab xolam bu baaxee léppam baax na bu baaxul daraam du baax xol nag li koy tax a baax mooy nga def ci bëgg yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax jaamu yàlla ak topp yàlla balaa mën a mat dangay bëgg yàlla ba noppi ndax loo bëgg rek bu yàggee loola dalay moom kon bëgg gi ngay bëgg yàlla mooy dem ba yàlla sunu borom moom la moom loola boppam te sax moomeel it dootoo ko wékk ci kudul sunu borom subhaanahu wa taala kon nag ku bëgg yàlla sunu boroom mi nga xam ni moo la war a moom te mooy ki moom moo gën a noppale lépp lu mën a doon bokk na ci liy taxa bëgg yàlla ngay setantal ak xalaat li mu la defal nga xam ni lim la defal mënoo ko lim ak li nga xam ni moom rek la ko mënal moom yàlla keneen mënalu ko lu mel ni cër yi mu la jox nga xam ne bu ci manqué woon dootoo mënal sa bopp dara teyit benn cër bu ci manqué woon amoo menn pexe moo mën a def ba man koo amalaat sa bopp euh, waaye li gën a yéeme mooy yàlla bind la moom la te foo toll di ko tooñ te teewul moom yàlla mu yërëm la bu ko defee nit ki daa war a xam ni lu jaamu yàlla metti metti sawaraako gëna metti te ku jaamu wol yàlla sunu borom subhaanahu wa taala na nga xam ne sawara la la yàlla jëme loolu la sëriñ Tuubaa di jinju ci xasidaam gii di wakaan xaqan muy siiqa alladina tarakul ibada li naari man man lam yutti abada te jaamu yàlla bis bu set lalay lay war ndax ni nga xamee ne bis bu set mënoo ñàkk lekk mënoo ñàkk naan mënoo ñàkk a yàlla mi la jox yooyu yépp nag kon faw ngay def luy wane ni moom yàlla moom mii moo la moom te yëg nga ko te mooy jaamu gi nga koy jaamu euh, te loo mas a def ci lu baax lu mu bari bari walul tax benn bis nga xëy ni doy na ndax loolu li la ci dimbali mooy li nga lekk démb lu mu bari bari tey jii boo lekkul mën ngaa am nga loru bokk na ci liy defar dundu nit ki muy tuub di delluwaat ci sunu borom subhaanahu wa taala tuub nag du lu ñuy wax ci làmmañ rek bàyyi dañ koy wax ci làmmañ waaye fas ko ci xol mu am ñetti sart yoo xam ni war nañ koo bàyyi xel bu jëkk ba mooy bàyyi lu bon ñaari booy nga rëccu loo ma sa def ci lu bon ñetteel bu mooy nga fa yéene dootoo ci dellu ci def lu bon yett yi bu dajee ci sa xol kapp te muy dëgg yàlla sunu borom subhaanahu wa taala baal la loolee nga doon tuub doonte seytaane mënaat na la ba nga defaat lu bon itam bu sa xol defaatee ni danga war a tuub nga tuub yàlla sunu borom subhaanahu wa taala jéggal la loo def defit lu bon ak lu mu yàgg-yàgg bu mu tax mukk nga defee ni mën baax ndax yonent bi sallallahu taala wa sallam nee na ki tuub moo ki mësula def bàkkaar ñooyam loo xam-xam nag lu baax na nga xam ne feeg defoo ko xamu kese gi amalul la njariñ loo xam-xamit lu bon feeg bàyyiwoo ko sëg mucc na nga xam ne wéragul alhamdulilah alkarim silmilan ala siradi bi furudin wa sunan sakartuhu li an qad saxani li watani bi nafa ma